ci seen émission Shukran ñu fas ci yéen a biir fàttalente ci sunu wàllu yàlla ndax yàlla dénkaane ci alquran ne wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin yow yonent bi sallallahu alayhi wa ak képp koo xam ne topp na ci sa gannaaw di roy say tànk fàttali day war la ndax fàttali dana jariñ ab jullit bu nar a jëriñoo mbokk yi nag tey euh, dañuy dikk ci xéewal goo xam ne yàlla defal na ko doomu aadama mbokk yi fi yàlla jaaral doomu aadama sew na waaye lépp di xéewal goo xam ne daf ko yéene nit euh, boo seetee ci sunu digganteeg bàyyi ma yi rek da xam ne am na beneen programme bu yàlla doxal boo xam ne buñ doon bu doon koy segregation dañ naan dafa ségreel nit ndax wax na ko ci alquraanam ju tedd ci sax ne wala qad karram naa benni aadama man yàlla day maa teral doomu aadama ci teraanga jum sàkkuwul nag moom yàlla moomu moo ñu ko terale euh, da ngay gis mbokk yi ci wala xat karam naa bani aadama képp buñ fa taxawoon muy xéewal gu yàlla defal doomu aadama euh, mbokk yi da ngay yeew sa fas ci biti bu tëdd jotee nga bokk ci mbedd mi mu fanaan buy tawte fa lay tawte buy noor fa lay noor fa lay dem toilette fa lay tuur ndox fa lay lekk fa lay defe lépp yow nag sa biir yow organiser nga sa bopp yow ba wut nga foo mën a nelawee wut nga fooy añee wut nga fooy demee sa bopp fooy gisee sa bopp ci wanag yooyu yëpp di teraanga ju yàlla defal doom aadama muy xel nga xam ne moo séparé diggante nit ak bàyyi ma waaye xéewal googu est ce que dëgg dëgg nit ñi xam nañ ko moo tax yàlla wax na ci alquran ne sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaqu min rabbihim yàlla nee na danaa leen wan samay kéemtaan man yàlla wan leen ko ci jaww ji xamu leen ko ma wan leen ko ci jéeri ji xamu leen ko ma wan leen ko ci suuf si gisu leen ko ma wan leen ko ci seen bopp gisu leen ko waaye wan naa leen ko ci seeni njabootit gisu leen ko xataa yatabayyana lahum annahu la ko dem nañ ba yëg ni dëgg dëgg yàlla rek mooy yàlla mais malheureusement bari na ci nit ñi ñoo xam ni euh, seen sant yàlla dafa xaw a des mooy yëguñu xéewal gi leen yàlla defal te dañu wax nee nag mbaaxu yàlla àgg na ci bu la mayee xéewal nga nooroo ko nawetoo ko xamuloo ni ci xéewal nga ne am na fayda ju doy ni xëy xëy rocc xéewal googa seetal rek ci ngay wér fekke tal man mais santuloo ci sa borom yàlla xëy rek ne la cuut métitu bañ ci nga yëg ne yow ndeke bañ am na njariñ wala boog am na ci xéewal goo nekkoon mais danga nga ko yëgutoon moo tax yàlla dellu waxaat ci alquran ne alam tara ila alladina baddalu nicmatallahi kufran wa axalluu qawmahum daaral bawaar law jahannama yaslawnaha fa bisal masir yàlla wax na ci alxuraan ne xanaa gisuloo ñi nga xam ne man yàlla dama leen a ràng samay xéewal mais xéewal ga sante wuñu ma ko dañ ko mujj wëlbati ko def ko ak kéeféer sante ko keneen wecc ko jox ko jox jox ko jox ko cant ga man ñu xarab ma man yàlla seen borom mais nee na duma ci yem ak ñoom sawara wu ñuy wax jahannama falaa leen di séndal yow mal xiyaam yàlla na ci yàlla musal mbokk yi ñàkk sant xéewalu yàlla nag euh, goree di weesuwu ko ndax dañuy wax ne buur bu teddee ni sa borom bi subhaanahu wa taala màngal la yiw wu tol ni def la nit loolu képp doyoon na nit sant yàlla waaye nag euh, mbokk yi tabaarakallaahu euh, ñàkk sant yàlla daal li jural doomu aadama bari na moo tax yàlla wax ci alquran ni fadkuruni azkurukum washkuru li wala takfuru ni yéen doom aadama yi su ngeen ma tuddee man yàlla ci place boo xam ne moo gën a wéet man yàlla danaa leen tudd su ngeen duggee ci bàmmeel ma fàttaliku leen fa su ngeen ma fàttalikoo ci mbooloo ma fàttaliku leen su ngeen wéete su ngeen ma fàttalikoo su ngeen wéete bu ñu leen dugalee ci bàmmeel ma fàttaliku leen su ngeen ma fàttalikoo ci mbooloo ma fàttaliku leen ci mbooloo mu gën mi ngeen ma fàttaliku waaye bu ngeen ma fàttalikoo ci seen biiri néeg man yàlla danaa leen fàttali ca xadara bu gën bi ngeen ma fàttali ko man seen borom kon mbokk yi liñ ciy yégee mooy doomu aadama daal na sant xéewal gi ko boromam defal subhanahu wa taala moo tax borom téere ba dafay wax ne laysa fi dunya naimun yushbiuhu naimul axira illa al ilmu wal iman nee nañ àddina daal ak li ci biiram benn xéewal nekku fi buñ mën a nuróole xéewal ga ca àllaaxira lu dul ne xéewalu gëm yàlla ak xéewalu xam-xam ñaar yi ku ko fi yàlla defal rek mën nañoo méngale na am nga xéewaloo ëllëg kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak ñu di leen jox dig daje ci suñu beneen jataay wa dawanaa daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu